turu ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk ci mouvance présidentielle mooy dañoo jël décision wax ci situation bi nga xam ne moom la réew mi di dundu depuis quelques jours gis nañ ne depuis ay fan ay manifestations yu violentes ñu ngi am ci réew mi occasionné li ñuy wax ay doomu aadama yoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan loolu nag ñu ciy jaale ñi nga xam ne ñoom ñooy seen mbokk yépp waaye aussi gis nañu ay yàq-yàq yu metti ci ay gox-goxaat yu bari ci loo xam ne naam mën nañ ne ay doomu senegal aussi ñoo ci doon jëruñu soit mu nekk foo xam ne dañ fay liggéey walla soit mu nekk ay bërëb yoo xam ne ku fa dugg am nga fa soxla te boo fa demee mun nga faj sa soxla loolu nag mu nekk loo xam ne ñun ndawu Benno Bokk Yaakaar yépp dañuy manifester suñu solidarité ak ñi nga xam ne ñoom la seen mbokk yi ñàkk seen bakkan ci loolu waaye ñi nga xam ne aussi dañoo ñàkk seeni matériel ak seeni koppar ci loolu loolu bu paase dañuy wax ne ko aussi ñun en tant que ndaw mais aussi en tant que ñu bokk ndey ak baay bokk Sénégal dañoo war a préserver li nga xam moom mooy intérêt réew mi te mu nekk loo xam ne dafa war a cher ci ku nekk mu doon loo xam ne ci ku nekk na doon moomeelu boppam loolu bu paasee mën nañ wax ne que suñu stabilité réew mooy li nga xam ne moom la Sénégal am muy jàmm ñu ñuy wooye le Sénégal de la Teranga loolu dafa nekk une réalité te dañoo bëgg mu continuer di nekk une réalité bu loolu paasee ñuy wax ni ko aussi àdduna bi yëpp ñu ngi ñuy seetaan fépp foo ti toll gis nañ ne que àdduna bi ñu ngi ñuy seetaan ñuy wax ne ko au nom de l' intérêt général de ce pays du ñu nangu manipulation boo xam ne day jóge ci ay force ay force occulte mooy ñoo xam ne kenn xamul fu ñu jóge ci biir réew mi wala ci bitim réew wala ñi leen di yëngal am fu ñu jóge pour ñëw déstabiliser suñu réew mi ci destabilisation boobu ñu ngi masawu surtout journalistes yi nga xam ne jàkkaarloo nañu ak ñoom te Zator wax ko léegi waaye aussi ñuy masawu surtout ba tey su ma ñëwee ci journalistes yeeg groupe de presse yi nga xam ne attaqué nañ leen gis nañu TFM RFM mais aussi gis nañu Dakar Actu am menace ak yeneen sit yoo xam ne ñoom ñëpp ñu ngi am ay jafe-jafe ci terrain bi ñuy wax ne loolu nag waruñu nangu benn yoon. problème boo xam ne ñaari nit la seq mu bëgg a déstabiliser réew mi ñu wax ni Sénégal dëkku jàmm la Sénégal dafa nekk loo xamante ne ñëpp a ko wax comme ni ma ko waxee léegi réewum teraanga la te ñun ñëpp dañu war a xalaat li nga xam ne moom mooy lu ñu war a bàyyi njaboot gi nga xam ne ñoom ñoo war a ñëw fii ak génération yi di ñëw mooy lu ñuy wax la legs aux générations futures li nga xam ne tamit moo ci am. mooy waruñu nangu intérêt crypto personnel u nit di jaxase li nga xam ne moom mooy réew mi ba tax na ndaw yi nga xam ne ñoo tënku ci jeunesse mouvance présidentielle yépp lu ñu wax mooy ne que du ñu nangu nekk ay bouc émissaire ay partisans de la déstabilisation de nos institutions ça veut dire que képp kuy ndaw de la de le ko ñu nekk Benno Bokk Yaakaar dañu nekk d'abord ay sénégalais dañu nekk d'abord les vrais patriotes nag de ce pays ba tax na duñu nangu institution yi ak moomeelu nit ñi ay nit di ñëw di ko saax-saaxe loolu bu paasee ñuy rappeler na que nag Sénégal état de droit la te dañuy encourager état de droit boobu di wax ne ko aussi vive la séparation des pouvoirs ñuy réaffirmer aussi suñu engagement indéfectible au président de la République Macky Sall président de la coalition Benno Bokk Yaakaar ci liggéey bu rafet bi nga xam ne mu ngi koy liggéey ci réew mi en tout cas di ko liggéey ci gox-goxaat yi di ko liggéey ci secteur d'activité yépp maanaam politique sociale bi nga xam ne mu ngi koy def ci réew mi ci équité ak justice ndaw ñi mun koo seede université yi mun ko seede monde rural bi mun ko seede mën naa wax ne que éleveurs yi mun ko seede képp koo xam ne yaa ngi ci biir réew mi amul lu jógewul ci nguur gi dem ci yow ci loo xam ne ngëneel la ci yow naam nag xëy na mun ñu noo dajale lépp mais damay wax ne que mesures yi réew mi jël président jël ko ba mu fi ñëwee 2012 ba tey amul benn sénégalais buy dund ci biir réew mi te munoo ne mesure boobu impacté na ci man bu dul bourse familiale di salaire bu ñu yokk wala courant bu ñu taal sa dëkk wala ndox bu ñu la andil wala école bu ñu la tabaxal wala université bu ñu la jox wala say doom yoo xam ne gis nañu seen condition améliorée ba tax na lii nga xam ne mooy affaire bi nga xam ne moo tax ñuy wax tey muy l'affaire aji Sarr Ousmane Sonko mu nekk une affaire strictement privée warul primer aucunement ci li nga xam moom mooy attachement yi nga xam mooy fonde suñu cohésion sociale muy déggoo bi nekk ci réew mi jàmm gi nekk ci réew mi ak jàmm santé bi nekk ci réew mi ñu xam ne suñu Sénégal gii mooy dëkk boo xam ne kal fii la am su ma rombee joolaa bi mën naa ko tooñ ne ko sama jaam nga su rombee tukulóor bi mën naa ko tooñ ne ko sama jaam nga loolu moo fi am ca maam yee moo fiy continuer di sax problème de viol mënu ko fi dindi donc loolu aussi baax na ñu leeral ko may waxaat ne que rek chers frères et sœurs opposition sénégalaise dañu war a accepter le jeu démocratique accepté le jeu démocratique au lieu que ñuy tenter détourner li nga xam ne moom mooy les vraies questions de l'heure le jeu démocratique mooy élection présidentielle am na fi réew mi tànn ki nga xam ne moom la ñu fal muy le président la république Macky muy liggéeyal réew mi ñuy wax ne ko loolu ñoom nañ ko nangu parce que am na loo xam ne bu ñu ci bëggee continuer day mel ni ñoom dañu wone seen limite ak seen capacité ci li nga xam moom mooy politique bi nekk tey face au président la république mi nga xam ne sañ nañu wax ne que mooy le président wala bokk na ci ñi nga xam ne ñoom la ñu gën a rafet fal ci istuwaaru réew mi tey nag opposition bii nga xam ne tamit lu muy gis yëpp mooy nan lay def ba yàq li nga xam moom mooy espace public bi pour mën a yaakaar ne mën na ci am sympathie sénégalais yi je pense que tey comme ni ngeen ko xamee yéen ñëpp am na suñu yaay yoo xam ne amatuñu fit seen teg seen table gerte pour jaay suñu sœur yoo xam ne ñemeetuñu génn dem marché pour dox seen soxla ndax simplement gis nañ fi ay bandi ak ay woy yoo xam ne ñu ngi ci réew mi di semer la terreur loolu nag ñun ñëpp war nañ ko bañ woote jàmm xam ne réew mi suñu réew la ñun ñëpp te lii nga xam ne moom moo am mooy président de la république Macky Sall dafa engagé wu liggéey ci jàmm liggéeyal réew mi ci li nga xam ne moom moo fi nekk ci li may waxaat rek mooy dañoo nekk ci weer boo xamante ne suñu mbokk chrétien yi ñu ngi ci li ñuy wax carême ku xam carême xam ne weeru ñaan la jaamu yàlla te mu nekk weer goo xam ne dafa sell buñ ci jógee ñu war a dem fii ak benn weer ci li nga xam moom mooy weeru koor pour ñun jullit yi loolu nekk li nga xam nag mooy les fondamentaux yi nga xam mooy suñu réew mi xam ba tax na ci loolu ñuy ñaanaat sénégalais yi ñu gën a respecter gestes barrières yi di takk masque yi waaye aussi encouragé waat suñu président félicité ko ci vaccin bi nga xam ne dugg na tamit ci biir réew mi pour protéger waat population bi lii nag fi nga xam ne foofu la ñuy jeexee ginnaaw bi ñu déploré li bi ñu déploré lii fi am yépp mooy ñun dañuy encouragé le président Macky Sall ci élan bi nga xam ne jël na ko ci plan Sénégal émergent ak PAP deux a bi pour que li nga xam moom mooy horizon euh, l'émergence à l'horizon 2035 gën a nekk une super priorité parce que nag loolu la sénégalais yu soxla te moom ci loolu la ñu nekk ñuy ñaan yàlla sàmm réew mi sàmm njaboot gi sàmm képp koo xam ne yaa ngi ci biir réew mi mais aussi sàmm suñuy kilifa aada ak suñuy kilifa diine may leen gudd fan ak wër